ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala ñun jullit yi di julli ci sangu mi ndeefi alayhi salaatu wassalaam di ko ñaanal jàmm ju sax dàkk moom ak njabootam gu sell gi ak saabaam yu baax yi ak góor yàlla yëpp di muslu ci seytaane bu mu xejamal sunu diine waaye bu mu jax-jaxal sunu dundin xutbaak tey mu ngi aju ci ñaari mbir benn bi mooy tawxiid jox yàlla cër bi mu am benn bi mooy def ndigal lu yàlla santaane yonent yi fi nekkoon seeni mbokk dañoo mas a dajeek ñoom di leen xupp yonent yàlla bi ñuy wax Ilyas dafa masoon a am feebaru coroxaan feebaru coroxaan mu koy sonal ñu ne ko boo gisee coroxaan bi dal la in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu maanaam suñu yàlla yi ngay xas moo la jàpp moo tax alquran ne naka lay ragalee yéen seeni mbir te yéen ragalu leen yàlla mi nga xam ne moo leen yëlif léeg-léeg ngeen gis ci jamono ay caricature wala ay sabote yu ñuy sabote saydina muhammad salallahu alayhi wa sallam ci àddina bi yëpp rawatina ci barab yi nga xam ne ay jullit dëkkeewuñu fa mu naqay jullit yëpp waaw naqari nañu naam waaye xam nga ku fonkul bàyyi du fonk du fonk doomam maanaam ku weddi yàlla ba pare wax dëgg yàlla bu xasee yonent bi alayhi salaam dinañu naqari de waaye bett képp ku weddi yàlla ak koo mën doon soo xasee yonent bi moom dinañu naqari en tànk que jullit waaye du ñu bett ndax weddi yàlla gaa tax yónn ñoom nag ñu toll seen bopp nañ ñun bu ñu xasee gëm yàlla ba pare amatul lu ñuy war a ragal suñu digganteeg yéen ci wàllu wi ngeen ñuy xuppee. yàlla waxaat ne xanaa doon ne yàlla mooy aar jaamam ñun ñi ñëpp kenn ku ne fàttalib nga bés boo xam ne du ndomb bi nga takk du xoor bi nga denc du saafara bi nga raayoo yàlla moo la dimbale rek ku ne fàttalib nga bés boobu xanaa bés boobu rek jar na jàmm yàlla yàlla doy na wéeruwaay yàlla doy na yaakaar ndimbal dafa fekk ne yonent bi alayhi salam ak ñi mu àndal dañ leen masoon a kompaloo fexeel leen mooy li ngeen déggee les alliés ci jamono rek dajale fukki junne nit ñoom ñu am ñetti junne nit ñu bett leen ci medina loolu mooy suratul ahsaab ñu koy wax xaswatul ahsaab yonent bi ya-, ñaan yàlla mu may ko ndam loo xam ne ci call weer la ko jaarale call weer bokkul ak yeneen ngelaw yi parce que du dox te ca weer du dox di jubal day tourner fi mu dem lay dem waaye ca weer googu guddi la doon dox daane seen tànt yi tasaare seen mbooloo yàlla may ko ca ndam loolu nag balaa yonent bi di ci jot yàlla defaloon na ko ko fekk juddoogul sax ndax yebaloon na ay picc yu yor xeer ñu ñëw tasaare arme abrahata alag leen fekk sax moom juddoogut nit daal bu xasee gëm ñàkk gëm ne yowmal xiyam am na ak njuritam day manqué il faut que ñu nangu ne yowmal xiyam am na ñetti oto ñoo fi am benn waaye dafa dem garage garage bi yëpp ñetti oto rek la fa fekk benn oto bi dafa bees machine bi bees mooy julit bu gëm yàlla ba pare am teranga julit bu gëm yàlla ba pare am teranga bu baax ni ki yuusufa ni ki taaluuta ni ki sul xarnayn ni ki daawuda nga xam ne jullit lañ ba pare nekk buur sax teg ci moom dafa fekk ci garaas bi oto bu bees tax waaye machine bi bees tax kenn ki dafa fekk ci garage bi oto bu màggat waaye machine bi daa bees mooy jullit boo xam ne bariwul man man waaye gëm na yàlla kooku boo duggee ci oto boo nga xam ne machine bi daa bees waaye jëmm ji daa màggat bi nga ciy dugg da koo xeeb waaye di nga teel a yegg bi nag dafa fekk ci garage bi oto boo xam ne jëmm ji daa bees waaye machine bi daa màggat loolu may nafeq isa saa tujibuka ajsaamuhum wa in yaqulu tasmaa li qawlihim ka annahum xusubun musannada oto boobu soo ci duggee rafetaay bi dina la yóbbu waaye doo yegg kon nag jullit am teraanga war na ko sakku waaye boo amul teraanga yi danga am gëm yàlla rek ñu xam ne tamit bu nit masee dégg ne yàlla nee na wala mu dégg na yónent bi nee na moom mi koy wax ak ñi koy déglu yépp illay wax ji baay illay wax ji daal mooy nañ dem def ko rek ñu xam ne ñun am nañ sansu dajeeg Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye am nañ sansu nekk jullit rek loolu doy na doy na puukarewoo ku lay pukkare woo daal pukkare wool ne man jullit la ñu moytu nag yi yonent bi tere ñu ci xuus ngir ne moom yërëm nañu ba wax na ko ba pare moom nag baax na baax goo xam ne même buñ dëgëree bopp def li mu tere du tere dina wëññeekuwaat ñaan ci yàlla pour bu ñu buñ alaku ñun ndax yàlla nee na ko tànk yaa ngi seen biir yow du ma leen alak waaye mën nañoo teg ay nattu suñu ko fii baaxe nañu sunu bopp baaxe leen ne am na benn fo bu xale yi daan fo ci pénc yi ak ëtt yi ñu koy wax làmpaañ waxoon nañ fi ne nañ baaxe sunu bopp aaye ko xale yi réew mu ñuy sànniwante dal ci sànniwante xeer la ñuy mucc réew moo xam ne xale yi dañuy foye ca mbedd ya sànniwante daal ay mag dinañ sànniwante xeer mës nañu baaxee mbokk yi fii ne leen suñ bëggee nawet bi baax dëkk bu nekk toolu imaam ba nañ ko njëkk a bay nañ ko gën a toppatoo waaye ñu dëkk sax ci teeru bi nañ xëy dem ca imaam ba seet lamb seen poos seet luñ ko defal suñ ko defee jàmm dina gën a bëri ci réew mi fàttali woon nañ fii tamit ne dëkk bu nekk ka fa yore noddu ga nga xam ne mooy oote julli gi ñun jullit yëpp nañ leen di bàyyi xel parce que ñoo représenté Bilal te ñoom am nañu ay soxla suñ dëkkee di def lii suñu xewal day yokk loolu nag ñu ngi ci waaye dañ koy fàttaliwaat rek lii xadiis la xadis mooy loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko baaxee ngir suñu gën a yokk waaye suñu diina gën a sell yonent bi alayhi salaam daal nee na jullit mooy koo xam ne jullit yëpp mucc nañ ci sa làmmeñ mosoo leen wax lu ñaaw jullit yëpp mucc nañ ci sa loxo mosoo gaañ seeni doom mosoo jël seen alal yonent bi alayhi salaam nee na jullit mooy koo xam ne lépp lu yoonam nekkul du ci dugg moo xam ci jëf la wala ci wax la moom daal daa jàmbure lu ne yoonam nekkul du ca dugg du ca wax jullit mooy koo xam ne li muy noppi moo ëpp li muy wax néew na nga dégg ku rëccu ne ah waroon naa wax waaye bëri na ku dégg ku rëccu ne suma sañoon duma ko wax kon wax moo ëpp rëccu noppi donte noppi léeg-léeg mu nekk bàkkaar ñi noppi nekk bàkkaar ci ñoom mooy ñi am kàddu képp koo xam ne soo diglee dinañ def soo teree dinañ bàyyi soo ñàkkee digle am nga bàkkaar soo ñàkkee tere am nga bàkkaar ba tey yonent bi alayhi salaam nee na diine laayewante biir la diine laayewante biir la laayewante biir gi nag defin gi moo jafe mooy mag kilifa su juumee nga fekk ko ci pénc ne ko danga juum dafay siisu dafay lang danga koy suturaal fekk ko ci néeg waxtaan ak moom ci orma xamal ko li diine wax kon dina la déglu même ñi nga xam ne tey masalan ci wàllu wér-gi-yaram docteur am nañ sutura su tal ni liñ xam ci dëkk suñ ko waxoon yëpp dëkk bi tàkk waaye dinañ la oo ci ruq yow kese yaag moom mu waxtaan ak yow aar la te lim xam ci yow ci maladie du ko mës nettali parce que lu mu gëñoon la ca fam fam amee woon lijaasaam ne moom dina nëbb bépp secret bu mu xam loolu la gëñoon moo tax nu mu waree ci doktoor la waree ci imaam noonu la waree ci boroom dëkk noonu la waree ci ku nekk kàddu yore kàddu rek nga am sutura ci doomu aadama yi ndax wóolu guñ la wóolu moo tax ñu lay wax seeni mbir yonente bi alayhi salaam nee na sama xeet wi yëpp dinañ dugg ajana ñëpp xanaa ko bugg la dugg ñu ne ko yow mi yàlla yónni naka la nit di ñàkk buggee duggee ajana mu ne dinaa wax yoon yi dem ajana yëpp dinaa wax tamit li nga xam ne ku ko def dem safara ku bàyyi nag li ma wax ne ku ko def dem àjjana yëpp nga bàyyi leen lii jëm safara yëpp nga dem def ko kon nekkut maa la ñàkk wax waaye yow yaa bëggut a dem àjjana yal na yàlla def si ñun dégg ak topp yal na lislaam di ñu tiitaroo yal na ñu tiitaroo lislaam dëkk bi yàlla def fi jàmm def fi xéewal def fi ndam def fi ndimbal def fi naataange def ko ci tund wi def ko ci raison bi def ko ci réew mi def ko ci réew jurit yépp وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وسلم وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله